ماهل مع الحس والسفر kuréel gi nga xam ne nag moo waral bis bi nga xam ne moom mu jugun ci ay jot ay liggéeyam ay taxawaayam démb wax nañ ko def nañ ay berne yu bari ngir lan ñi nga xam te ni ñooy setal dëkk bi setal dëkk bi nag nit ñi dañ cee war a taxaw dëkk bi taxaw maanaam dañuy mbalit mi fi nekk nga xam ne nit ñi ñoo ko fi indi dañ ko jëfandikoo te soxlaatuñ ko bàyyi ko ci dëkk bi loolu la ñuy loolu la dindi waaye dëkk bi moom tilimul Tuubaa du tilim ñu liggéey ci liggéey bu am solo nag ak yu ko weesu yëpp muy mbooloo moo xam ne sëriñ tubaab moo leen tax jóg du keneen lenn raxu ci lu dul Serigne Touba waxoon nañ ko fi daaw politique benn coalition la ñu bokk benn parti la ñu bokk coalition l'islam parti mouridisme boolewuñ ci lenn ñun coalition bi ñu bokk mooy l'islam waaye parti bi ñu jógee nag ñëw ci biir coalition bi mooy mouridisme Serigne Touba rek boolewuñ ci lenn ñu tuddaleen ndawi dëkk bi tur yu nag day xeebu boo ko déggee boo xawul sa tur day xeebu ndax ndaw réew mi ñu nekk muy Sénégal danoo jàppewul ndaw lu am solo te mooy lépp ci ci am réew rawatina ak dund mën naa ne ñi ci bokk ñëpp képp ku dëkk ci dëkk bi te bëgg lu baax te di murit ci nga bokk yoruñ ay carte de membre yoruñ ay numéro waaye bu nu ko yoroon duñ ko mën a duñ ko mën a lim muy ñu am taxawaay nag ñu am pastef loolu mooy journée Cheikh Ahmad Bamba bi journée sant Serigne Touba lañ waxoon defe nañ ko niñ ko waxee woon jóge nañ ci corniche Serigne Cheikh ak mbooloo mi góor ñi jigéen ñi xaajali ko ñuy tudd baatu laa ilaaha illallah jërëjëf Serigne Touba ba ak si Daaru Marnaan yaa ngis gis nañ ci cérémonie bi lépp dañuy tënkuwaat ci ndaw ñi pour ñu continuer waat gën a jox Serigne Touba li nga xamante ne ni moom la ñu warloo ak moom lépp ndax lii lañu woote woon mooy nit ñi dox doxe corniche Serigne Cheikh ñëw ci Daaru Marnaan defee nañ ko noonu ñu ngi waxtaan pour gën a tënkaat mbooloo mi ñu gën a jébbalaat Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul suñu yaakaar ja lépp te te loolu lañ def tey taalibe rek moo am solo bi ci des mooy ñu continuer dugal suñu loxo ci dëkk bi niñ jàppee ne ju bëree bëri ay réalisation am nañ ko ci dëkk bi war koo def di ay ndaw ñu continuer def loolu ñu ngi ci ay waxtaan mbooloo mi day continuer ay participation kon ñu ko ñenn Euh, euh, na ci mbooloom Touba bi ah, mooy Touba ca kanam xam nga ne loolu état laa koy woowe du ma da daayira ñun daayira la dañuy góorgóorlu action yi nga xamante ne ñun ci dëkk bi ñu bokk ci ñi koy defar. ci jomam ak ngorom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké maam Thierno borom Daaru nee na ko woon sa bàyyi jom la rawee góor ñëpp bu ñuy wax jom sëñ Touba moom jom jom benn kàddu la woon sëñ ko yor sëñ Touba moom jom waaw léegi mu jàpp njàppam mu taxaw buntu bato bi di jàkkaarlu géej gi waaw jamono ak kajoor xamul géej xanaa demee ndar bato bi daw jëmmi sëriñ bi ci boppam bu loolu amee mu taxawal boppam jàkkaarloo géej gi kenn kuy wéttali sëriñ bi nekku fa kenn kuy taxawu sëriñ bi nekku fi ba muy sànni der bi it wolof yu leer nañ ñi la sëñ Tuubaa wax dane ko wurru na ko bu la gaal gi weddi nag julli géej nañ déglu wa fil yow salla al asr yajri bi jildihi maal fulki yabudu raakian xayra saajidi muy lu leer nañu ko wa fil yow salla al asr yajri bi jildihi maal fulki kon der bi ak gaal gi noo lang ñoom ñaar yabudu raakian xayra saajid mu ne wurru daram yàlla jaral ko